Euh, euh, euh, présidentielle 2019 bi man dégguma la ci parrainage yi temps baa ngi dem eh noppi na dégguma la ci pare yi dégg sa candidat kan la woon vite fait ma maamataa gis nga gis nga ñi ngi nangu seen caméra yi wax ma taf taf présidentielle 2019 yi. waaw koo àndaloon. gisoo RDS def eh, campagne. dégg gisuma ne man moo a mm. jaaxal. mais am nañ ci droit waaw mais koo jàppale koo voteel. man bu amee ku may voteel wala ku may euh, jàppale. Hmm. du nëbbatu. waaw kan la jàppale woo kenn. dama toogoon sama ruq rek. waaw daanaka mais mais pourquoi soobu woo ci. Ah, parce que aw ma moyen pour dem ci mais demoon naa ci législative yi. waaw léegi euh, yow pouvoir nga gën a jege pro pouvoir pro opposition. wala nga ngarale <laughs> foo bokk daal tant euh, d'abord je dois dire que man je suis en de bons termes ak ñi yàlla dénk nguur di tey te lenn rek ko waral ah. dafa am ay liggéeykat qui sont victimes d'injustice ah. yaakaar ci Jamra pour ñu euh, jokkoog ñële ndax ñu mën na jot seen waaye wuñu ma de pro pro Macky pro opposition looloo waral ba ma àndeeg ancien combattant yi ñu def marche Macky Sall woo na ma waaw téléphone waaw ko ciy gërëm il n'était pas obligé de le faire. wax ma tamit yërmandeem ci dossier bi et cetera. Hmm. Euh, bi nga xamee ne itam euh, jóg nañu ñun waa Jamra mm. wax ne que euh, dañu fas yéene am taxawaay ci passifs sociaux yi. parce que du kii rek ancien combattant yi rek. parce que les travailleurs de la Sénélec wax naa la ko sànq. mais tu pas permis de terminer. non parce que temps baa ngi na cent Cissé rek la Euh, Pape Demba bi tey am naa ci sens de travail moom ñaari yoon. waaw mu ngi koy réglé. yooyu yëpp yooyu yëpp nag je suis obligé. di remonter l' auprès du président de parce que moo ñu yilif ñun ñëpp mais ça ne veut pas dire que. APR la ah, kon duma du ma benn bokk yaakaar. Euh, waaye borom borom réew mi. Ah, sa xarit la daal solution euh, liggéeykat yi. ci nekk ci loxo Sénégal yi gis nañu ne tontu euh, doo xeex état d'accord léegi dialogue national bi gisoon naa ci ouverture ba bi seenu ma la fa lu ko waral. dialogue national bi ko Macky Sall lancé le 28 mai 2016 demoon na. waaw te boobu daf ma joxoon une lettre comme. c'est le cas de tous les autres leaders wow. personnalisé avec nom prénom et tout ko boppam maa ngi ko ciy remercier bii nag am na kilifa gu mag gu nekk présidence gisuma gisul ma def benn manifestation d'intérêt mu ne ma affaire bi suba la ma ne ko waaw maa ngi lay remercier mais du ma ñëw waxal ma ki ne du ma ñëw mu ne waaw la da mer ma ne ko du question mer ah, dama jóge ci ay élection législative hmm. yu bari ay mbóot hmm. dont nous avons été victimes man Tunkara maître El Hadj Diouf. mbay Mbaye il y a deux millions d'électeurs yoo xam ne jotuñu seen carte. deuxième mbir bi ñu naq naqari euh, listing ba nekk ci euh, listing d'émargement bi nekk ci bureau de vote bi ak bi nekk euh, bi waa Sénat yor am na une différence de 18 000 électeurs. d'accord troisièmement ordre de mission yi conditions yi ñu ko doon joxe. benn rek laa ci cité waaye pour ne pas prendre le temps. fii ca Dagana Oumar Sarr. loolu PDS dafa toog tuuti ñu signalé ko ne ko am nay kaaru Ndiaga Ndiaye yu jógee Dakar ñu ngi tuur ay ay ay électeurs loolu demoo ñooñu ba ñu ñëwee gis nañ ne ay ordre de mission la ñu yor ñii ay coxeur la ñii ay euh, jigéen fóotkat yooyu et cetera alors que ordre de mission loolu taxu ko jóg alors moo tax nag ma ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen mënu leen sumba beneen fóot hmm. te fóot bu njëkk ba leeralu leen ko fóot ba mu set weer d'accord léegi nag demuma ci dialogue national bi d'accord léegi Mamata jàpp na balaa gis nañ ni ni ngi teg seen bagage yi léegi euh, euh, jàppal ma si rek yéen a ngeen xaw a ñàkk kese yéen kii of mbay mii euh, léegi Mamata Macky Sall lu tax nommé gu la ba léegi lu la nga la ba léegi pour nga am tuuti salaire sax au moins kii nu mu tëddi Mola Mola Morgan waaw dafa def benn tontu mu directement Maxtaar Macky moo day nëbbatu dégg nga affaire jamraam bi rek a feeñ waaye politicien la Macky ko dàq ca foire ba ma tontu Morgan ma ne ko mais Morgan Macky c'est ko ah, ah, man maa ngi sama liggéey. mais mi ngi lay xaas quand comme mi ngi la may xaas tuuti di jàppale fin de mois facture yu chère yooyu. ah min waay ne ko def. kon defagu ko. comme que yow itam maa ngi xaar sa participation pour Jamra moom itam maa ngi xaar bosam. d'accord di xaar bosu Idriss Seck Sonko ñoom ñëpp maa ngi xaar seen bos. d'accord ça marche Jamra yàlla a jóg. mais Ablaye nag yaa ngi déggante ak ma yaa ngi. waaw Ablaye Wade bi ma mujjee gis ak moom. mooy ba ma jógee ci sama audience beeg Macky Sall ak Cheikh Kanté. loo kañ la. voilà 2014. kon lépp a gisante voilà ba ma fa jógee waxtaan nañu. mais euh, encouragé Macky pour mu jubóog papam. waaw par la suite. Euh, ma jóg dem euh, waroon seeti Ablaye Wade dajeeg moom Euh, kër euh, Grand Serigne Dakar Papa Ibrahima Diop parce que Ablaye dafa ñëwoon pour jaale si alors par la suite euh, c' une longue histoire ay ay dox ci diggante bi yàq ko. waaw voilà boobu la nga contact est rompu d' léegi ba ci des mooy. ni euh, ñaar question euh, moo ma dese bii nee ma waaw wala déet rek euh, aar li ñu bokk ñoo lànk nangam je sais que yow yaa ngi bokk ci aar li ñu bokk su ma jumlee fi mu ne dañoo jël le relais de des des hommes politiques nekk ci mbedd bi di xeexal euh, Sénégal loolu euh, échec politicien waaw ou pas politicien. aar lu ñu bokk bi ñu koy porté sur les fonds baptismaux en juin maa nga toogoon. waaw mais politicien ñu ba ñu paree war a def déclaration bi maa jëkk def déclaration. d'accord pour euh, dénoncer l'interdiction de la première marche de aar lu ñu bokk. <laughs> alors léegi nag. par la suite. ki taxoon ma dugg aar lu ñu bokk. parce que yàlla dogal na ci moom laa jaar. et je le salue au sama doomu ndey imam ndax euh, su ma naataangoo la tontu ba ma taal alors boo kooku jékki-jékki génn. avec ses raisons. waaw moo tax génn waaw euh. waaye ñu dem ba yàgg. Euh. am et je suis pas le seul. Mm. tuumaal nañu ne aar lu ñu bokk. dafa am un soubassement politique. Mm. moo tax c'est pas un hasard que bu ñu xewlee. yëpp kenn du ñëw d'accord comme que Kocc Barma dafa wax ne. Euh, ñàkk bopp weesuwul muy taw ngay fobeere alors moo tax ñun ñu jël un peu de recul pour voir un peu plus clair d'accord mais je suis membre fondateur d'accord léegi bii nag dernière question rek euh, actuellement nii réew mi ñëpp lépp cher ba nga saa lépp la yokk courant bi diwliñ beeg euh, meew meeg ñëpp lépp a yokku Ablaye Wade moom moo tane woon ma Sall ou pas man kay dama xaw a daanu ba may joxe dépense soxna si avec mon ma maigre petite pension de retraite mu ne ma diwlin yokku na ma ne ko 900 francs la mu ne ma déedéet jóge na 900 dem 1000. yenn boutique sax mm-hmm. ma ne ah Macky foog ñu wax ak ma Macky ñu gënal Abdoulaye moom moo tane tuuti ndax au début ba mu faloo toog na fi 5 ans bloqué prix yëpp. waaw benn yokkuwul. waaw après bi ñu falee góorgóorlu maintenir loolu. waaw mais um, tontu ma foofu Wade moo tane noonu ou pas. non Wade tam am na ay moment mu bloqué woon. mais am na moment. conjoncture internationale ëpp ko doole. réew mi flambé. mais bii nag yow solution ba ko doon xas. Hmm. gis na léegi les la réelle politique. les réalités du pouvoir. d'accord voilà. léegi euh, Makhtar Gueye euh, euh, sa émission mel na ne jeex na xale yi gis nga ni gën nañ seen seen caméra yeeg yooyu tàggatoo rek ba ñu ko fi. waaw tàggatoo bi daal lu gàtt la ay surtout mooy dañu nekk ci réew moo xam ne ñun ñëpp a ko bokk. te kenn warul a xeeb contribution kenn. Hmm. ce pays a besoin des bras et des intelligences de tous ses fils et de toutes ses filles. Par conséquent nañu fonkante surtout nañu jox cër suñu kilifa diinee ndax ñoo fi suñu la mhm. ñoo fi toogal Bamba Maodo Baye Niass Baye Laye. Mhm. ndax ñooñu itam ñoo fi toogaloon Seydina Mohamed. Mhm. kon nag euh, ñun bu ñu jógee ne dañuy euh, fay bor. ñu baax ñooñu. dañuy wax lu ñu neex rek ndax ku la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonente bi nee na boo doon liggéey ngir dund di ko jox sa salaire mën na ko fay bor li ñu mën kay delloo leen njukkal ñi leen mën a leen delloo njukkal nag mooy ñun sagaru taalibe yu xeebu yu ñàkk solo yi mooy ñu joxante loxo seq seen ndono lu rafet looyu seen héritage spirituel mm-hmm. sàmm ko aar ko mm-hmm. ba ku ko bëgg xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel wala lobby maçonnique ñu jóg jàmmarlu ak yow mu jaral lu ne kon nag yal na yàlla dàqal réew mi seytaane yal na yàlla def jàmm ci Sénégal te làqal ñu réew mi fu yàq yegul asalaamaaleykum wa rahmatullah amiin yaa rabbi Mame la woon vice président ONG islamique Jamra euh, secrétaire général euh, rassemblement démocratique sénégalais RDS euh, la ci en acronyme ñu la gërëm di la sant ci <laughs> ci waxtaan bi waaye nag li ma la wax nii li nga ma li nga ma dig bu ko baaxee. maa ngi xaar sa cotisation. waaw cotisation <laughs> cotisation dëgg dëgg. a cotisation Macky. pré pré retraité la ak <laughs> ba bëriwul danoo euh, la boole si sama kii. voilà say waaw su ma yalwaanee à gauche à droite. su ma ñëw ñu partagé. ak Kelle Ba dina ñëw. <laughs> Maama Gagué sama grand sama sama sama xarit dëgg-dëgg euh, comme ni ma waxee rek euh, yéen a ma yar donc ma amoon mbégte dalal la euh, waaye li ma la wax na ñaar yi ma dig fii Sénégal yi dégg nee nga di nga bàyyi di nga tëj sa kii Facebook bët yi yéen yi doo ko xoolati yaa ma ko wax fii waaw maa ngi lay xaar nag <laughs> donc ñu koy gërëm bu baax di ko sant dinañ gërëm yéen tam Sénégal yi ci seetaan yi di gërëm bu baax nag sama rakk yooyu Caribou Spa Kari Diop ci cheveux bi coiffure bi donc ña nga foofu ca rond point euh, JVC euh, euh, boo accès ba foofu rek téléphone baa ngi nii ci suuf boo woowee Alima wala Kayra rek ñu defal la lu dàq li jox la cheveux defal la yu yu gën a rafet yi tey nag sama yëru of may bàyyi ñaan jëlal ma sama rob ba ci suuf sama yeneen rakk fandi design jéew géey bëgg xaalis <laughs> moo moo fi jaar ña nga foofu yof océan numéro téléphone baa ngi nii ci suuf may phone bu baax sama rakk yooyu ak nag sama rakk xol maam Dorine Gueye borom ITV tey grand style Baye Mado euh, avant Mado sax dafa dafa mel ne tey liggéey siwul dafa école buissonnière euh, euh, quand même xale yi ñoo maquillé nii glam style la numéro baa ngi ci suuf moom itamit donc may gërëm ñëpp nag équipe technique beeg production bi ma jël lépp dëxañ ko teg ko ci loxo a Cissé maaw Cissé sama nijaay bi nga xam ne fii nii temps yi naa mi ngi xaw a respecté un peu vraiment euh, euh, euh, contrat de travail am c'est c'est très bien fi ñu dàqaate moo xew xale bi ma jàkkaal tamit ku ñu war a dàq la of mbay ndax dëgg-dëgg cameraman Sénégal yaa yaa ci gën a nul montage bi Moussa Sène la di gërëm di ko sant <laughs>